di aman mbégte encore une fois di nyaufi euh, fii euh, au niveau euh, donc de la mairie de Mermon Sacré-Cœur tey bu ñu waxee mairie Mermon Sacré-Cœur chers internautes di ngeen xalaat ki nga xamante ni moom le maire Barthélémy Diaz moom mi nga xamante actuellement mu ngi mën en quelque sorte mu ngi def buzz par rapport à peut-être certaines euh, intervention yi muy def yi muy faral di def ñu xam ko ci engagement politique mais également ñu xam ko euh, ci li nga xamanteni mom modi euh, compagnonnage am ak ki di Khalifa Babacar Sall aujourd'hui ñu fassiyene yéene waxtaan ak mom ci li nga xamanteni mom mo soxal actualité mais également ñëwaat un peu en arrière daal di brosser quelques points relatifs peut-être à la gestion de la pandémie antérieurement tay euh, di am mbégte di dalal euh, monsieur le maire de Mermoz Sacré-Cœur monsieur Barthélémy Dias Dakaractu mu ngi lay euh, nuyoo di la jaajëfal di di la wax nga nuyoo suñu mbokk internet yi comme ni nga koy faral di defee. mais ma ngi len di remercier di leen di sante ci invitation bi di nuyu tamit mbokki internet yu ngeen xamné ñu ngi suivre sur le site internet Dakar Actu et am tamit yakar que ci waxtan bi askan wi dinañ ci am luñ ci jëriñu effectivement am yaakaar ni euh, askan wi dina ci jëriñu waye tamit euh, ñi nga xamanteni euh, peut-être yag nañu gis ki nga xamanteni mom modi moo Diaz engagé wu en politique di xex li nga xamanteni mom modi peut-être l'instauration d'une forte démocratie au sein donc de notre pays parce que nous, bari peut-être jamono ji ñu ngi ñaxtu ñu ngi euh, par rapport à lu bari li fi xew euh, ñu bàyyi juste nga ñëwaat ci par rapport à quelques points yi nga xamanteni ni nous euh, na mën nañ ko brosser gis nañ la fi dernièrement nga def ay activités dans le cadre de la euh, peut-être pandémie Covid-19 bi bi fi ñëwé depuis le 2 mars ñëw ci Sénégal am avons fi mel ñu gis la nga ay activités dans quel sens exactement mais que suñu warugar la c'est le social euh, la santé et loolu ay compétences transférées Là. président Macky Sall été euh, ay nous euh, Nous nañu tem bi ñun dogal tamit ñu bokk ci parce que mairie état la nous suñu nous lañ fa nous état askan donc euh, Lolo maa ngi ci le conseil municipal de la commune de Mermoz sacré bu baax toute obédience politique euh, confondue parce que a ci dugal seen loxo donc di ci jaajëfee ñëpp di euh, remercier tamit le gouvernement parce que lu ñu de dinañ ko def ci commune de Mermoz wax dëgg tamit def nañ ko di ci félicité di ci félicité ku nga xam ne ni moom la ñu confié woon bi mhm. honorable député Juliette Paul Zingan di di di ci félicité sous-préfet au Almadi euh, de féliciter tamit commissariat de Dieuppeul ak euh, le euh, madame le commissaire de Dieuppeul di féliciter tamit monsieur le préfet de Dakar parce que wax dëgg yàlla ñëpp petit jàpp pour que fii biir Mermoz sacré particulièrement askan wi ñu ngeen xam ne ni ñoom dañu soxla woon ndimbal ñu mën ci gis seen bopp donc ñu ngi jaajëfee ñëpp di continuer nak wax dëgg yalla di ñaan askan wi dañu gorou ci sen taxaway parce que mbass bi dafa am te euh, c'est par des comportements responsables patriotiques citoyens la ñu mën am yakar xex mbass mbas euh bu ci dess tamit euh, moy di ñaanal ñu ngeen xam ni ñom la yalla dogal ñom ñoy yor responsabilité ou xex mbass bi fi bi Sénégal yalla na leen yàlla yokkal sutura te may leen ndam mo xam euh, le personnel sanitaire mo xam toutes les autorités ñu ngeen xam ni wax deug yalla tous les jours dañuy yew di di xex pandémie bi ak di ñaanal tamit ñu nga xam ne ñu ngi tëdd ci hôpitaux yi yàlla na yàlla euh, yokk sutura ndax ñu mën delluwaat seen njaboot yi d'accord courage politique bu Barthélémy Dias tey bu ñu koy wax amaana duñ fi jógee parce que euh, gis nañ lu liñ ci def euh, ñu bari xam ko teg ci seen bët waaye tey ku xam sa waajur wu góor xam ni am na jaar-jaar il est témoin de l'histoire comme ni ko ñu bëri di waxee waaye tey dafa mel ni yenn jikko yu ngeen xaw bok est-ce que mën nga def relation bi entre yow peut-être li nga xam koy ak ni mu mel mom peut-être ci xadar en politique buñ koy xol souvent. non je pense que cette question vous, je pense que c'est au Sénégalais d'y répondre euh suma wóojur nak yàgg naa ko wax di biiralaat wax jooju nee naa su ma wóojur bokkuñu parti politique ñu gis-gis ci politique. wonté mooy suma exemple ci aduna té politique dafa bok ci aduna moy exemple wax euh gëm sa bop gëm tamit Sénégal parce que Sénégal ñu ñor man États-Unis ñoruma France ñoruma man Sénégal la ma ñor fi la fi la dëkk fi la juddoo fi fi donc euh, je pense que le moment venu les Sénégalais seront jugés mm-hmm. l'histoire sera jugée mm-hmm mais je peux dire que je suis très fier d'être le fils de Jean-Paul Diaz. Mhm. ceci étant dit beaucoup nous gis-gis. Mhm. des fois des dames gauche ma droite. des fois ngeen y ci yenn. non man ak suma papa nag du ñu du ñu c'est ay waxu politique te loolu de saa yu ma koy wax damay jaaxal nit ñi mhm. mais du ñu seq waxu politique parce que amul sens. amul sens ñuy seq waxu politique il n'est pas à un niveau de responsabilité où il décide. Euh, donc euh, ay conseil am dina ko dina ko dina ko déglu bu baax mm-hmm. euh, des fois def may wax effectivement àndal ak dal moytul lii moytul lële mm-hmm. wante je reviens à ce que j'ai dit ñun lu ñu ñor moy Sénégal ak ëllëgu Sénégal mm-hmm. té motax tay suñu yëkëti ay cadeau, même si des fois dañuy frustré ay Sénégalais dañ leen di ci jéggalu bu baax a baax mais luñ ci namm moy Sénégalais yeewu ñu xamné ni que ëllëgu Sénégal kenn du leen ko tabaxal ñoo koy tabaxal seen bopp Té, wax dëgg yalla ñu nga xamné tay ñoom ñoo élif Sénégal danaka dal euh, des na des na lu bari parce que je le dis souvent nee que ku bëgg a élif réew bu mel mm. Sénégal la ngay am yërëmande ci sa askan. justement ci loolu lañuy ñëw sax parce que gis nañ dernièrement yaa ngi def benn vidéo bo xamanteni euh une dizaine de minutes la jangat nañ ko xol nañ bu baax li nga ci li nga ci wax décortiqué nañ lu ci bari waaye li ci gën a fës daal dafa mel ni euh, yëfi élection nga ci doon wax ba mu am peut-être benn jàngat boo ci def Eh, di eh, halap li nga xamante ni peut-être mooy ay démarches yi ñenn ci opposition bi di amal mu mel ni tey gis-gis tey Barthélemy foofu dëgg nga fa sa tànk bu baax. mais bu baax a baax. lu waral loolu. mais lu waral loolu mooy caaxaan bu ñu nekkee nekkee ci bu nga wax askan bi mënu ci gis boppam parce que réew bu mel ni Sénégal dañ koy pencoo ko pacho ñoom dañ ko bëgg akimu. mais dialogue lañu hamga xam nga bu ñu nee dialogue président na buntu ñëpp. donc c'est à peut-être l'opposition de venir en masse peut-être waxtaan ak li nga xamante aussi mom modi tollu way réew mi ak ñom opposition en tant qu'opposition li fa mëna apporter. waaw mais waxtaan dañuy waxtaan lu am solo mais luñu waxtane ay di waxtane yu nga xam wax deug yalla ay ay ay ay ay waxu politicien la tu waxu politique sax waxu politicien la mm-hmm. parce que tay suñu toogee tay Sénégal ñu né dañu nono dem wuti ji ay nasaraan mm-hmm. bitim réew mm-hmm. fay leen ay koppar yu takku ci alalu askanu Sénégal pour ñu daldi audit euh, fichier électoral dañuy auditer fichier électoral mais kan lañ Sénégal Sénégal ñun soxlu ñu ay ñu fi ñëw pour auditer suñu fichier ensuite ban dañuy auditer président Macky Sall ministre de l'intérieur xam fu may Sénégal ëpp na fi fichier donc instant instant fichier fichier parrainage mm-hmm. utiliser pour liquider ay candidat beaucoup ak fichier pour ñu présidentielle

mën nga ko xex mu nek xexu dole wala man nga ko xex mu nek xexu xel Macky Sall fu mu tollu ni tay jamono ñu tollu ni xam na ni que xexu dole du jàll parce que yoratul parti yoratul coalition do sax gis ku koy waxal ba di ba di ko xeexal donc fu mu nek ni mi ngi jema xex xexu xel moy mandat bi dina ko am wante duma ko duma ko fësal duma ko wone wante dina ko am Nous ma koy amee mooy du organiser ay élections te 2019 man yëkkati naa fi ay kàddu ma président Macky Sall gañewul élection dafa deux kees ma wane nu mu deux kees te amul kenn ci ñoom ku ma parce que dama leen wan sen bopp maintenant ma biré wax ji nee naa pour dëpp élection kooku il faut nga am au moins ñetti at pour préparer ko loolu la Macky Sall di liggéey nii daanaka élection locale yu ne woon am 2019 Macky Sall leeroon ne da koy gagner Dakar gagner les da organiser mais organiser élection donc da nga xam da nga japp ni dafa organiser élection ma ñëw rek organiser élection. Mhm. da nga organiser pas parce que da ngay am certitude que da ngay gagner wala doo gagner. mais da nga organiser parce que loolu mooy sa warugar Sénégal 16 millions sénégalais ont fi nekk constitution du Sénégal dafa dogal benn sénégalais kese moo fi mën a convoquer le corps électoral mooy le chef de l'État par décret présidentiel donc moom mënul a jël décret boobu mënul tok tay ne du ko jël parce que dañu dañu woté waxtaan ba ngay parrainage woté waxtaan gaay di xex ci mbedd bi ngay lif di di lacrymogène di tëj te da parce que da nga soxla woon parrainage est-ce que prise de conscience par rapport à tout ce qui s'est passé Non, non, a peut-être non non non euh, euh, prise de conscience coco. Euh, autorité moy jël moy am prise de conscience autorisé amul prise de conscience autorisé par exemple moy équilibre bu ñuy bu convoqué Paris parce que Paris dafa am ñu nga xam di convier dañ di am ok parce que je suis sénégalais je n'ai pas le droit de dire que le Sénégal est dirigé par un sous-préfet ou un préfet au passage je respecte tous les sous-préfets et les préfets mais dañuy euh, le président du Sénégal doit convoquer le président de la France ce n'est pas normal que le président de la France convoque le président du Sénégal ce n'est pas normal et je reviens à ce que j'ai dit Lou Côte d'Ivoire Lou Guinée lu Mali ak Sénégal Paris ne peut pas dire qu'il n'est pas impliqué il n'est pas informé c'est faux Paris est informé. Donc, instant B, dans et, et je reviens à ce que j'ai dit. Mm-hmm. je, le dis en français parce que ceux à qui je m'adresse se connaissent. Les Français ne sont pas nos ennemis. La France est notre partenaire. La France est notre allié. La France doit se comporter en tant que responsable. Parce qu'aujourd'hui, le comportement, pas de la France ou des Français, mais le comportement du gouvernement français en Afrique francophone, il est irresponsable. Et Macron, il est décevant. Je suis désolé de le dire. Parce que Macron, ça devait être une nouvelle génération. Une nouvelle façon de faire. Une nouvelle façon de voir. Macron, Macron, Macron. Macron, Macron, Macron.

Dick ndeysaan ñu ne ba dafa malaise ñu ngi ñaanal malaise. may ko lu ko fi jar lan fi jar nga jël cartes électeurs mais on a tous vu des enfants de rien du tout voter dans dans au, nord du Mali bourrer les urnes gagner aux élections le leader de l'opposition du Mali tu t'organises pour qu'on l'enlève toutes ces personnes Ibeka, nga xamné daf len galgal tey ñom ñoy waxtaanee ëllëgu Mali IBK il est couché sur un lit d'hôpital lu ko fi jar président Macky Sall su gagné won élection 2019 il n'aurait pas besoin d'appeler à un dialogue politique on ne peut pas gagner des élections et puis quelques semaines plus tard di un dialogue politique dëppkatu kees moy wootee waxtane donc on est en France en miniature non je ne dirais pas qu'on est en France en miniature je dis que le gouvernement français honnêtement, doit comprendre qu'on est en 2020, il doit faire preuve de responsabilité. Je reviens à ce que j'ai dit. Le gouvernement français ne reconnaît pas de coup d'État militaire. Il doit avoir l'honnêteté intellectuelle et le courage de dire qu'il ne peut pas reconnaître de gouvernement issu de tripatouillage constitutionnel. Ça s'appelle de la responsabilité. Tout de même, M. Macron le doit à l'Afrique. Au nom de tout ce qu'il a dit en Afrique, c'est le minimum il ne faut pas nous prendre pour les demeurer. Nous sommes à l'âge des réseaux sociaux. Tout ce qui se passe, nous le savons. Et alors le président de la République ne l'a pas compris Non, le président de la République du Sénégal, une fois de plus, doit comprendre que ce n'est pas Paris qui va avoir le dernier mot. Et la preuve par mille au Mali. Paris n'aura pas le dernier mot. Paris peut tirer les ficelles. Paris peut être dans la diplomatie souterraine, mais Paris n'aura pas le dernier mot. Parce qu'on n'est pas d'accord, ni disponible, ni disposé à ce que Paris ait le dernier mot en Afrique aujourd'hui. Ça sera valable en Côte d'Ivoire. Ça sera valable en Guinée. C'est déjà valable au Mali. Et faites-moi confiance, ça sera valable au Mais gis nga non est-ce que Taï, euh, loolu loolu nga wax dina valable concrètement ak sénégalais yi ni ñuy agiré jamono ji xam nga tay buñu buñu buñu waxtané wax dëgg ci la xeyna na gis nañ ni ñu bari ci sénégalais yi euh, dañoo passif peut-être xeyna na dinañ né voilà président mu ngi def li est-ce que dina ko def ñu bayyi mu xaw euh, accélérer, ñu bayyi ko mu accélérer dem ñu dem ci benen étape kazalika et cetera et cetera est-ce que tay étape yu répétitive euh, est-ce que demul ba may président confiance ba nga xamanteni ni mën na wax ni luma neex lay def euh, voilà té dara duma ci fekk tamit est-ce que sénégalais yi ni ñu wàcce en 2012 yow nga bokk ci paré ngeen encore une fois pour def la même chose éventuellement. Dina, la dina la wax dara. Hmm. je suis un acteur majeur du 23 juin pour ne pas dire je suis un acteur clé du 23 juin le 23 juin, j'ai été dépassé par les événements. Quand je dis que le peuple sénégalais est un peuple de dignité et de fierté, je peux en témoigner parce que j'ai vu ce peuple en action. Quand je dis que le peuple sénégalais est un peuple de courage et de lutte, je dama ko pas kenn du ko nettali moo tax Barthélémy semaine bi mon objectif c'est que le may wax nii mu dugg ci sénégalais man man damay dox rek ba sénégalais xam fan lay parce que une fois que les sénégalais comprendront ce que j'explique là mais c'est pas le dialogue politique qui va le régler et je répète ce que j'ai dit Paris n'aura pas le dernier mot parce que 2024 ñu bëggul organiser élection 2024 c'est parce que l'exploitation du pétrole et du gaz commence en fin 2024 le pétrole et le gaz n'appartient pas à un parti ou à une famille ku mom, moi le peuple sénégalais Macky Sall mënul tok fi mu fogg ni que tant que naanu lepp ginzu lepp du fi jóge day nax bopam il faut organiser des élections c'est essentiel donc tey je reviens à ce que j'ai dit il y a une volonté manifeste de luñuy waxtané ñom sen biir tey mooy lan lañuy def ba randal élection locale tënk lépp nag ci après ci benn gouvernement d'union nationale bëgg nelawal askan bi ñu ne dañuy waxtaanee ëllëgu Sénégal dañuy soi-disant auditer benn fichier lan lañ fi mais monsieur le maire est-ce que tamit loolu c'est pas paradoxal opposition bi ak ni mu meloon ni ñu ni ñu suude woon jàpp ni peut-être voilà pare nañ pour indi changement par rapport à ce qui s'est déjà passé depuis 2012 Hein? est-ce que tay japp nga ni euh, don na lo xamante peut-être ci ñom c'est euh, nek na lo xamni tay par exemple euh, du du du loo ni jël nañ ko à la légère quoi ñom opposition bi parce que tay buñu xolé yow peut-être ni nga ci mel ak ñom ni ñu ci mel bon ñu bari mën nañ xaw sceptique mais vous avez en quelque sorte les mêmes objectifs. mais cher ami man wutuma man wutuma poste ministre. ñoom ñooy poste ministre Macky Sall Macky Sall mhm. nous sommes non suma mag la Macky Sall su ma woon tey ne ma dama bëgg nga dugg ci gouvernement mais du ma ko du ma il sait très bien que du ma dugg Macky Sall suñ ko waxoon sax da ngay woo Barthélémy Diaz euh, mais il le fera pas parce que c'est que je viendrai pas. ñan la woo ñu bu ñu bëgg a dugg. non damay man bëgguma ça les individualités ne m'intéressent pas dama ne ñu nekk dialogue politique bi suma ma baat ci kaw ñu ngi waxtaanee gouvernement d'union nationale man maa ko wax maintenant nag suma ma baat ci kaw man du ma yëg ci gal bu dul costé man ku dem ci gouvernement d'union nationale nga bam ma fi té ku dem ci gouvernement d'union nationale di nga merekul deful dara parce que du luñu waxanté té le peuple sénégalais du lu muy xaar le peuple sénégalais xam nga lu muy xaar nañ leen jox sen carte d'électeur nañ leen wax kañ la organiser élection yi té ñu may leen ñu mëna sandi sen xop c'est tout ce qui demande c'est un peuple pacifique wanté nga xañ leen élection té sen carte électeur nous ñu bëgg votel doyul maintenant organiser maintenant dik rek bañ leen de pression nous pression, organisé organiser élection locale nous, Nous, maintenant nous organiser élection locale avons 554 Sénégal Dakar statut spécial président euh, euh, nommer kuy Dakar maire xam nga suñu président Macky Sall ñaari wax moom benn bi c'est pour le peuple sénégalais président Macky Sall fas organiser élection présidentielle 2024 parce que c'est un objectif principal du ko organiser mais loolu pour mu mën il faut que élection locale ñu reporter ko te ñu ngi ci tànk yi parce que la preuve man suma mandat jeex na mandat wu maire sénégalais yëpp jeex na wante ñu ngi toog ba tey loolu su demee il faut que mandat député mandat député tamit ñu randal ko législatif. Législatif. dañ koy mm-hmm mais si vous rendalee le législative en am 2022 nous avons en 2024 mais présidentielle da quel c'est vrai que dina am incidence ci. mais non, euh, mais mais bien sûr parce que entre temps da quel di wax waxu audit du fichier révision des listes inscription période de contentieux mais on est en train d'endormir le peuple sénégalais et j'ai décidé de vendre ça au peuple sénégalais Bon, mu s'en bop. dafa que sénégalais yi parce que c'est le peuple sénégalais qui va régler son problème. Ce n'est pas ce dialogue. Ce dialogue est la plus grosse escroquerie du mandat de Macky Sall. Ce n'est pas ce dialogue. Parce que Ken ci ñoom génnagul ba ne leen lan la amul Ben sénégalais bu xam lan dialogue politique. donc donc jàpp nga ni li ñuy rumbalaat ci suuf euh, par exemple est-ce que les Japonais dem ba euh, jur lu raw li xew euh, Côte d'Ivoire. wala Mali non Mali parce que Mali. Mhm ñoom dañu dem bëne ñom bëggutu ñu sax élection na fi waji joggé ñun waji ji ñu ngi koy organiser élection té man ci ay fan yu néw di ngeen ma gissat di ngeen ma déggat parce que nous allons nous organiser pour descendre dans la rue et exiger des élections parce que lolu moy démocratie maintenant nag Macky Sall effectivement yàlla may na ko doole tey yor nguur. en fait mais la euh, suite on connaît. la prison mais amul problème ma ñëw rek s'il vous plaît. avancer c'est important lu may wax nii parce mhm. que il faut pas que Macky Sall ngeen ma ci président Macky Sall qu'il pense qu'on va le laisser faire il n'y aura pas de troisième mandat au Sénégal ni officiellement daanaka mooy le micro wax damay def troisième mandat conseil constitutionnel taxaw fële tënk ko wala officieusement moi ni oui ni non wante amul élection mbedd bi moo koy au Mali dañu ne dégage ñun fii on va dire élection est ce que mi na pour l'identité. loolu mais wallaay mi ngi ñor mi ngi ñëw mi ngi ñor te du ay affaire de politiciens. Parce que les politiques, ils ont démissionné. Soit Batchekao, et j'en fais partie. Paye, Macky Sall de Pékès, Bataille, quel est l'homme politique qui a posé un acte d'opposant Bala Médé, statut de l'opposition. Ousmane Sonko, par exemple. mais moom gis nañ ko mu fës lool ci li nga peut-être moom démarche état etc. je ne na ci lool. je ne lui concède mais ci waxin jëf bi Peut-être may wax ci Ousmane Sonko c'est valable pour moi Maintenant il faut s'organiser parce que ces leaders... donc euh, mhm. mhm. ceux qui se disent être les leaders de l'opposition et qui en réalité sont des dealers xam nañ lu ñuy parce que l'Union, à mon lu doit être gouvernement d'union nationale doit ay statut de chef de l'opposition ensuite il y a tout de même d'autres jox son pas que bu mu lay rendre. naka ngay toog nga ne danaa jël lu toll ci ñaari milliards ci ay koppar di ko jëbbal sa noon du ko def te dëkk mel ni Sénégal xool leen ñu ngi ci nawet ñaata ñëpp ñoo mënul sax nelaw ci néeg ndax ndox fu nekk ngay jël lu toll deux milliards di ko jëbbal benn nit fu mu lan fu muy bonde deux milliards mooy daanaka yaa ngi jox nit ki weer bu nekk yaa ngi koy jox cent cinquante millions weer bu nekk biir Sénégal ak ndóol bu fi nekk nga jël benn doomu aadama nga koy jox 250 mille euros. wala 300 mille dollars. pour lan pour mu nekk opposant jàpp nga ni Idrissa Seck pare na kooku dama lay laaj rek Sénégal Sénégal. Hmm. ban xel moo mën a nangu. ngay jox nit lu toll ci 150 millions weer bu nekk mu ne xeex loolu fan la am ay xeetu dóor marto la moo tax ma ne lii c'est une escroquerie politique c'est au peuple de comprendre ce qu'on est en train de dire on va s'organiser L'Union Seck pour euh, accepter privilège Seck je le réitère c'est un leader pour qui j'ai beaucoup de respect Idriss Seck n'est pas le problème du Sénégal le problème du Sénégal et le président Macky Sall qui refuse de respecter la constitution. organiser des élections C'est un délit. mais le peuple a tout compris les élections c'est pour quand joxe Karty, Biden gagne compétir il ne faut pas créer un dialogue politique pour penser que bon Khalifa Sall il est inéligible Nous, allons négocier Khalifa Sall et je le lui ai dit tant que Macky Sall pas ngi troisième mandat tu seras inéligible et actuellement Macky Sall pas ngi ci troisième mandat donc ça ne sert à rien de discuter du cas de Khalifa Sall parce que l'éligibilité de Khalifa Sall, ce n'est pas une question judiciaire. Elle est une question imminemment politique. C'est le politique qui l'a rendu inéligible, c'est au politique de le rendre éligible. La preuve, le procès n'était même pas totalement vidé, on l'a disqualifié de l'élection présidentielle, le pauvre. Ça s'appelle de la dictature. Mais mais Khalifa Sall euh, yow nga a mené ensemble un combat. Ouais, est-ce que tay meun nañ euh, xalaat ni euh, ki di Barthélémy Diaz euh, peut-être meun na dem ba bon parce que xeyna peut-être engouement bi nek ci yow ak xadar bi nek ci yow xeyna na nekul ci mom waye tay est-ce que pare nga pour génne ko ci situation bi mu nek tay situation de mutisme bi mu nek tay Khalifa Sall n'est pas dans une situation de mutisme. La preuve, dernière vidéo Khalifa Sall, je pense que peut-être communication bi dafa am nu ko interpréter mais suñu xolaté vidéo bobu ngén seetaanaat vidéo Khalifa Sall lenn rek la ci wax en réalité il a seulement dit aux Sénégalais que di ngén ma gis di ngén ma dégg je m'apprête à revenir dans l'arène politique il a peut-être dit d'une façon assez mal comprise mais lolu la wax ensuite bien sûr ñaanal Sénégalais ñu góorgóorlu ci ci xeex mbass bu fi nekk Maintenant, ceci étant dit, je reviens à ce que j'ai dit. Khalifa Sall et Barthélémy ce n'est pas le même profil, ce n'est pas le même style, mhm. c'est ce n'est pas la même culture politique, ce n'est pas la même génération politique. Mhm. Est-ce que l'on peut vous avez différence vous euh, euh, Amali, peut-être, il y a une initiative humaine, par exemple, 100% euh, voilà, l'Adréoumi, voilà, Yunimel. Am une initiative Khalifa Sall est mon leader et Khalifa Sall est mon candidat. Mon je ne comprends pas le sommes Khalifa Sall de côté élection. Nous, nous sommes des acteurs politiques Le tax ñeneen di bokk nous, ñun duñu bokk lu tax Khalifa Sall du bokk élection maintenant les gens qui pensent que il faut que ñu ñëw tok waxtaan ak par force il faut que ñu juboo ak ñoom par force il faut que ñu déggoo ak ñoom par force ensuite il faut que ñu dugg le gouvernement par force je répète par force pour que Khalifa éligible mais kon Khalifa sera pas éligible parce que du am mais je reviens à ce que j'ai dit Yalla mooy maye mhm. IBK lu khalifa lu Macky Sall Sénégal loolu la nekké won Mali mais ana mu tay mu ngi tëdd ci lalu hôpital ñu mu xeexoon ak ñu mu galgaloon tay ñom ñoy waxtaanee ëllëgu Mali. donc japp nga ni leçon la bu ci Macky Sall tirer. dama l'avenir de ce pays sur le plan politique. Mhm. à court terme ne se fera pas sans Khalifa Ababakar Sall c'est pas possible. d'accord et ça Makissal doit avoir l'humilité de le comprendre. d'accord et comprendre que lu mu nekkee nii. Mhm. Euh, ça peut pas prospérer. munoo nekk parce que tout de même mais naka la ñu mën a nangu dëkk ci réew bu ñuy woy république démocratie ngay tànn kuy bokk ak ku dul bokk ngay seppi gars ci ay parrainage ak ngay seppi gars ci ay ci ay ay waxu ci ay waxu caaxaan. d'accord gis nañ fi euh, beneen point rek juste ci toujours ci actualité gis nañ fi euh, coow li nga xamante ni yees na fi ci wàllu euh, magistrature ni mu yëngu woon fan yi coow li bëri lool yow nga am peut-être situation boo dundoon par rapport ak euh, magistrat yi mu am nu mu demee sa côté ba nga passé ci juróom-benn weer ci ci kaso donte sax xëy na peut-être mën nga ñu defal jàngat bu ndaw bi nga am ca situation car <laughs> situation prison yi nan nan nga ko nan nga jàngatee li nga xam moom mooy réalité prison waaye gannaaw loolu boo ci ñëwee euh, ñu xam exactement euh, situation magistrature boobu yees fi fan yi boobu bëri coow lool nan nga ko jàngatee. c'est la corruption, la malgouvernance, le manque de sérieux. C'est en fait, c'est à l'image du pays. Il y a un bon, c'est que peut-être, de euh, Sénégal dafa am ñu bëri dégguñu tubaab nag. soo ko c'est da un tegin mais euh, ci wolof ci wolof mais man ne pas la prostitution mais la prostitution du coup, du taxaw ci mbedd bi di wut euh, di wut euh, dépense maa ngi jógalu nag ci jigéen parce que jigéen a ma jur te jigéen a jur sama ay doom euh, tey góor yi ñu ngi ñu ngi prostituer amna ay góor yu nga xamné ne dañuy def lu nga xamné ni amul ben diine bu ko santané mais prostitution intellectuelle amna prostitution professionnelle amna prostitution c'est sous différentes formes parce que tay nga nek kilifa nga waat que tu vas servir et rendre le droit au nom du peuple nga gis na que da nga ñu ñu Khalifa Sall da nga lu def dafa man je n'enlève pas une seule virgule et je reviens à ce que j'ai dit il y a des magistrats qui sont indignes d'être des magistrats ceux qui ont jugé Khalifa Sall il constitue une insulte à la magistrature sénégalaise parce que dans cette magistrature il y a des hommes de refus et il y a des hommes de. donc il mais mais mais mais il se donne même un spectacle comment est-ce qu'un magistrat peut condamner Khalifa Sal sur la base de tout ce qu'on a vu et entendu lors du procès de Khalifa Sal Khalifa Sal est victime du plus grand complot politique de ce pays après Mamoudou Dia seulement pour avoir nourri une ambition de servir son pays. Mais c'est du n'importe quoi. Et Macky Sall considère que ça va continuer. Mais ça ne va pas continuer. Ça va pas continuer. Mon solo ce qui s'est passé au Mali est honteux moi je connais le président Ibeka j'ai connu Ibeka avec feu Ousmane Tanordien. Ibeka j'ai passé presque une semaine avec Ibeka et Ousmane Tanordien à Denver, au Colorado, lors de l'investiture de Barack Obama. Ils étaient là-bas pour le compte de l'international socialiste. J'étais avec eux pendant une semaine. Je connais Ibeka. C'était un homme d'État, un homme responsable. Je ne... Mais au Mali Le trouver dans cette situation aujourd'hui, mais c'est pénible. Dans la vie, il faut savoir prendre du recul, avoir de la tenue et de la retenue et Macky Sall je pense que c'est pas trop tard moo mais insister wat. troisième mandat bi na teg bala terre parce que il sait que su ko bëggee def ni Ouattara wala ni Condé wallaay xam que duñ ko setaan moom xam il le sait il le mm-hmm. sait parce que dafa ànd ak ñun. lan ngeen fas yéene. non il le sait Macky Sall il nous connaît il le sait De grand peut-être doole bi demee noonu mais il sait la woon fa woon ba woon na woon dañ ko ciy tegaat rek lu am jël lu am wante wante dama mhm. il faut que Macky Sall qu'il songe à ce que je dis je ne le menace pas mhm. parce que je connais ce pays là nous sommes mais Macky Sall doit savoir d'abord qu'il est d'abord un père de famille il ne faut pas qu'il aille trop loin ça mhm. passera pas maintenant là, comme il se dit que su ma ko defee Alpha Condé wala nu ma ko ni nii Boy booy dañuy bàyyeeku bàyyil ma jëm a nelawal gars yi not wóor leen domb moo que ma ko élection locale yu ngay ràndal bëgg a ràndal législative bu laal présidentielle parce que mooy lu ñuy wax rek mooy troisième mandat bi rek mandat wu juróomi at nga ràndal élection bi ñetti at def nga demi mandat wala defoo demi mandat def nga demi mandat man bala may dee ñu may laaj man Barthélémy Dias est-ce que damay def candidat 3e mandat ci mairie bi. waaw dafa melni lool tamit ñu ngi koy waxtaanee. yow comme yaangi ngi 3e mandat est-ce que di nga def yow it euh, euh, di nga laajaat municipalité maire bi. mais 2e mandat bi jeex na Macky Sall mo moo 3e mandat ma ngi 3e mandat ni et c'est illégal c'est illégal Nous, ne ma démissionner Je suis d'accord Nous ñu nga dañu am des ci man ci ay bourse ci ordonnances, ordonnance ci ay ay des euh, euh, lu des mairie mais nous dañ ma décret Macky Sall nous décret organiser l'élection. élection mairie fiy de manière légale aussi. mais mairie bi. Mhm. xam ngeen lutax ma tok fi dañ non, xex Khalifa changer le mode d'élection du maire de Dakar, supprimer la liste à la ville, rendre l'élection du maire plus difficile. Les gens n'ont pas voté en grande partie pour Barthélémy Diaz ici. Les gens ont voté pour Khalifa Sall. Et c'est valable dans toutes les communes de Dakar. Moi, quand je vois certains de mes collègues maires, il faut mhm. que ça n'aille demain. Barna, Barna, bonne élection. Parce qu'on se connaît à Dakar. C'était un combat Macky Sall, Khalifa Sall et Khalifa Sall a gagné. Maintenant, Macky Sall, c'est que veut dire gagner Dakar Gagner Dakar, c'est gagner le Sénégal. Perdre mm. Dakar, c'est perdre le Sénégal. Maintenant, il fausse les règles du jeu pendant le jeu. Il, il décide que à la 40, il, il décide que maintenant euh, euh, match bi ñaari mi-temps la mu def ko benn mi-temps. Barthélémy Diaz euh, tey euh, li ñu jot a gis dañuy parce que technicien ñu ngi may ñu ngi may def siñu que ni li ñu amoon daanaka ci waxtu mais dañuy ñëw ci avant dernier point bi nga xamante ni euh, ambition yi nga xamante ni euh, le maire euh, le maire Mermoz Sacré-Cœur am au-delà de la mairie bien entendu tey ñu gis activité yu bëri yi nga jot def par rapport ak Covid bi et cetera vraiment nga am lu bëri loo xamante ni dox nga ko ci ñu bëri seen xel jëm ci ne amaana peut-être am nga ambition wu nekk président loolu lan la ci Barthélémy di wax. non l'ambition est le moteur de la vie je confirme ce que j'ai dit mon candidat pour 2024 c'est, ça reste et ça demeure Khalifa Ababakar Sall. Parce que j'ai vu en lui des valeurs que Makay n'ai ensuite Bouti tegu ambition je reviens à ce que j'ai dit l'ambition est le moteur de la vie man Barthélémy ambition wante je suis dans un groupe nous avons l'ambition de conserver la ville de Dakar c'est notre fief politique c'est notre base politique lolu nak wax deug yalla Macky Sall su demee baña ne statut spécial koku nak moy ku bëgg gagner coupe du monde té bëggoo joué coupe bi bëggoo joué finale bi koku man musuma gis dëkk bu yëkëti coupe du monde té joué wul finale bi mairie de la ville de Dakar aussi bari na jongante loolu ñu ci tuddu bari nañ yow sax ñu ngi la ci doon tuddu est-ce que ah dégguma ci suma tur nag <laughs> am na am xam ñu ngi doon euh, wax sa tour di wax ku melni Amadou Ba wala ay Diouf Sarr ak ñu ni mel euh, tey nan nga jàppee ni peut-être tey mairie de Dakar euh, euh, peut-être gestion bi ni mu demee ak euh, peut-être ñenn ñi ñu ciy tudd ñu mel ni Diouf Sarr Amadou Ba jàpp nga ni ñooñu bu ñu demoon tey ba nekk au niveau de la mairie jàpp nga ni routine mooy am wala dina am changement. Amadou Ba du ma xel ma mënul xalaat wala nangu mu nekk maire de Dakar. ah bon ah oui parce que tey suuf bu ñu saax saaxee Dakar loxo mi ngi ci. avant ah, On est comme directeur général des impôts et domaines mm-hmm. ensuite est comme ministre des finances comme le patron des gens qui s'amusent avec le foncier on ne peut pas confier la ville de Dakar à un pierre de foncier et le problème à Dakar c'est muy souffre. quant à Abdoulaye Diouf je sais que Yoff mom dina metti pour ñu jëlee ko foofu wante am nañ fa un ndaw bu ñuy wooye euh, euh, Seydina Issa mm-hmm. te wax dëgg suñu Yakar te mooy yaakaaru ndaw yi. moom tamit mbaa ko pierre de. <laughs> non non moom wax dëgg yàlla sax moom ñu ngi koy ndokkale di bu baax a baax ci mbas bi gis mm-hmm. Abdoulaye Diouf Sarr il mérite euh, notre respect il mérite euh, notre considération parce que mm-hmm. il a tout de même montré ses preuves mm-hmm. au service du peuple. wante Dakar dafa am borom dafa am borom te kooku ku neex ku mu naqari c'est Khalifa Sall. maintenant vous lui avez retiré la ville de Dakar mais sa famille politique est encore là et on bouge pas vous organisez les élections quand c'est quand et c'est où et c'est comment c'est la question principale c'est la question c'est quand c'est où c'est comment d'accord ñu jeexal juste ci euh, point bu mujj Barthélémy Diaz gis nañ ni bi nga amee euh, fukki at ak ci au niveau des États-Unis nga dund fa xam fa euh, dernièrement nous gis fa ay coow yu relative peut-être au bien-être des Noirs xam nga maltraités, ñu etc. maltraité foofu et ak li xew avec euh, George Floyd etc. cetera quel euh, sentiment nga am gannaaw ba nga yegee ça yow mi nga L'Amérique est un pays raciste mais les noirs euh, se sont toujours battus continuent à se battre tôt ou tard l'Amérique Amérique euh, dina soppeeku parce que mi ngi ci la preuve États-Unis jot fa chef d'état-major général des armées mu nekk nit ku euh, poste bu ëpp solo ci gouvernement bi secrétaire euh, secretary of state ministre des affaires étrangères nit ku ñuul toog na fa. Euh, ilif États-Unis président tok na ci Maison Blanche muy nit ku ñuul. donc amna ont que l'Amérique va changer maintenant l'Amérique s'est construite sur la violence parce que dafa am fu tubaab yi bàyyi ko won ñoo si sif suuf donc violence culture violence boobu mo am Amérique ba par exemple États-Unis mbédu fetel yi lu gars comprendre constitution Amérique ci la ñu dugal que doomu Amérique bu nekk am nga droit yor pour mën a sa bob. te loolu amul kenn ku mën a ci constitution parce que États-Unis kenn du laal constitution loolu mooy wax dit la preuve États-Unis nu n'y fallait président daanaka doo gagner vote populaire daanaka doo ëpp ay xob wante yaay yow yaay falu na président parce que dafa nekk ci constitution ce sont des impairs yu nga xam peut-être bon je sais pas si les générations futures vont le corriger mais ça fait partie aussi du charme de l'Amérique. Ceci étant dit, euh, cette Amérique raciste a donné aussi naissance à ce qu'on appelle, nous, le rêve américain. Tu rêve américain, beaucoup, chacun a une place pour se forger. Il faut, il faut y croire. Euh, américain, une a une nak nak fofu, nous, ken nous, C'est une histoire, le peuple noir américain est un est un peuple qui a beaucoup de mérite. Malheureusement, c'est un peuple qui qui a une histoire de tragédie, une histoire de traumatisme, une histoire de violence. Mm-hmm. Mais c'est un peuple qui a beaucoup de mérite. D'accord. Vous aussi, euh, vous avez beaucoup de mérite et nous le reconnaissons. Djadjafal, euh, juste euh, ce dernier mot, tagato bi ngay tagato mais même bu doon même bu dul tàggatoo comme ni ñu koy waxee ñu bayila nga lancer walé en même temps ce message à l'endroit du peuple sénégalais comme jamono ji da nga nekk ci ben dynamique bo xam vraiment de dénonciation la ñu bayila nga adresser ce message au peuple. mais di len di gërëmaat len di santaat ci invitation bi euh di commencer d'abord di interpeller monsieur le président Macky Sall di ko ñaan vraiment na na na na xolat lu ko sénégalais yi may.

Nous que euh, le Sénégal est une démocratie doit le rester. Mm-hmm. à ce titre il ne s'agit pas de brûler ce pays. Mm-hmm. il s'agit de se mobiliser et de faire comprendre aux politiques qui sont une minorité. Mm-hmm. qui n'ont pas le droit de s'amuser avec l'avenir de ce pays. d'accord. merci beaucoup en tout cas ñu ngi lay jaajëfal di euh, remercier encore une fois sunu mbokk internet yi ñu doon suivre comme d'habitude moom euh, xam nañ ko euh, à travers son engagement ak li nga xamante ni aussi mu ngi koy fësal saa ne ngir jubbanti li nga xamante ni moom la jàpp ni moom moo doxul ci réew mi ñu koy remercier encore une fois à chaque fois pour son euh, pour sa disponibilité autant pour moi de remercier aussi son nombre internet de remercier également ki nga xam moom moo di Pape Konaré nga aussi euh, diligent dans l'idée di entretien vraiment di remercier technicien yep salé Demba Moustapha di leen jox dig daje euh, ci beneen jamono l'entretien jërëjëf